soo ñëwee dina leen doole moo tax président Khalifa Ababacar Sall jël mu ne ci programme dina jël bu nekkee président de la république incha allah rabbi commune bu nekk dina la doté un milliard de francs CFA boo xamante ni ci budget Sénégal lay jël su jugee ko ci budget Sénégal dem ci communes yi nga xamante ñoom bu ñu koy def ci côté fonctionnement lay doon. d'accord donc loolu. Uh-huh. Mhm. c'est des c'est des c'est des c'est des débuts de solution yoo xamante ne tey mu ngi ciy réfléchir di xool tey. gox-goxaan yooyu noonu nan lañ leen di doolelee ba nga xamante ne situation bi ñu nekk précarité bi dinañ ci mën a génn. sauf que actuellement dañu nekk ci moment bu nga xamante ni façon promesse bu nekk dinañ ko dégg mais une fois que ngeen xas ba toog ci nguur gi da nekk ci yeneen mbir. li ma la wax nii du promesse du mesure où Khalifa Babacar Sall maire de Dakar da ko essayé woon avec les de commune bu muy nekk maire Dakar commune